pour xam ban jigen lañu nekkal. surtout ça. goor ñu bari wax na la fi ne la porno moo leen jàngal sëy. Hmm? goor ñu bari bu ñuy sey ak jigéen lanu seetaan non ci waaja la mu doon def ak ndaw sa non lañu def ak soxna si. il répète les mêmes choses yi nga xamanteni mom lañu gissone ñu hmm. alors que dafa am 5 types de femmes yu am fi au Sénégal ak partout au monde entier. Hmm. dafa am luñu duppé femme de saint jigen ñi nga xamanteni sen ni ci sen ci seen cusuween la nekk. tey am na jigéen boo xamante ni soo bëggee mu yëg bànneex faw da nga koy nàmpal ay wenam pourtant yàlla bind na jigéen boo xam ne mën ngaa fanaan ci ay wenam ba bër set du la du la lijjanti du yëg dara mu am une femme ñi nga xamante ne nii gis ngeen baal ma ci kàddu bi ah damay jaaraat ci digg bi parce que noonu la baat bi tudd ah. coach <laughs> coach wàññil. Aïcha donc nag femme kilito ñu <laughs> mën nañu leeral tuuti rek. <laughs> c' est que olof moo xaw a doy waar. olof moo xaw a doy waar. aywa nañ dem. Aïcha mu muy muy jigéenu copperet ñi nga xamante ni ci seen copperet la ñuy yëge plaisir. Si vous def ak rapport d'utiliser utiliser intensité la durée mën ngaa def ak mom cinquante ko plaisir mu am G découverte scientifique bu mac, Berg allemand découvrir en 1983 di wax ni le partie la bu érogène mm. sensible où wu yenn ni vers les trois 4 centimètre en haut mooy jigéen ñi nga xamante ni ñoom mën nañ sax bégal seen bopp tey am na jigéen boo xam ni jëkkëram mën naa def ci kawam fan fanweeri minute pourtant moom bu jëlee ay baaraamam bu ko dugalee ci kanamam même pas une minute mu mu éjaculé mu daanu parce que ñooñu nga baaraam leen moo gën a neex ci ñoom ko gësee ak mu am jigéen boo xamante ne nag catégorie bu raar la moom la ñuy duppee femme tout jigéen ñi nga xam ne moom seen lépp a sensible ku ba sax boo ko boo laalee boo moytuwul ñu ne der ci fóonante kese mën nañ cee yëg léegi yow bu la yàlla na nattoo yow góor ji moo jàng pour xam sama soxna ban catégorie la ci soxna yi mais mun ngaa def ak moom plus de dix ans te doo ko yëgloo bànneex mhm, mhm. donc dafay baax ku góor ki fexee gëstu pour xam soxna ma nekkal ban genre soxna la ma koy defal loolu ngir mu yëg bànneex mhm. tey am na jigéen bu lay wax ni la suma baaraam bi su ma ko jëlee tey di ko dawal sama copperet bi kese man en tant que jigéen mën naa exciter sama bopp mën naa daanuloo sama bopp mais bu ko góoram deful mënu ko daaneel Mm-hmm. donc yii ay facteurs la yoo xamante ni mën nay tax jigéen ñi ñàkk yëg a mm-hmm. euh, a mën a chercher ki moom pour moom mm-hmm. loolu bokkul ci ci ci combat bokk na ci sama combat yi gën a rëy fi mu toll nii actuellement yi ba góor bi jigéen ñi néegub marié boo dugg di nga fa fekk ñu lon ko fay fer nuisette yaa nga jale lépp loo fekk tey mu tegee ci coiffeur. Mhm. jigéen na koy utiliser pour bégal jigéen. pour bégal góor waa léegi lan la góor war a def pour bégal jigéen. Mhm. te pourtant sëy la ñu wax. Mhm. c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. liñ lay defal yow en tant que góor muy neex mais war ngaa xam ni kii daa mindaaful la doomu aadama la ni man su ma ko defalee moom itam da koy neex. ah waaw ah, man je suis contre ça góor bi wax naan sama jabar day def lii tamit du ma ko defal de je suis contre ça. day waar kon nak liñ lay defal yow muy neex yow itam war ngaa mën a delloo bal bi yow tamit nag muy neex. Mhm. foofu nag ma lancé fa message jigéen ñi di leen wax ni nañuy privilégier la communication. Mhm. c'est très important. parce que jigéen ju ne ni góor war a defee itte pour xam jigéen noonu itam la jigéen war a defee itte moom itam pour xam boppam. Mhm. waaw jigéen ñi da xam na fay neex ci moom waaye teel waxtaan ak sa jëkkër. waaja ngi sa kaw di ñërti ñërti yow femme clitoridienne nga sa jab sa jëkkër di utiliser la force di utiliser puissance nekk ci sa kaw di ñërti ñërti mais amal le courage waxtaan ak moom na ko nijaay daal du fii fii la mhm. ah waaw il faut ñuy waxtaan ak góor ñi tamit nag ndax xamuñu <laughs> donc du fii fii la du nii nii la jigéen war na ko mën a wax jëkkëram nijaay defal ma nangam mais est-ce que ku góor ki warul mën a jàng jabaram ba xam ko waaw mënul nekk jëkkër jabar ngeen yombalal ko ko mhm.

mom simila ak bismillah ci weenee lay attaqué ji direct doy na war alors <laughs> coach ñu dem ci ci benen point moy mhm. li nga xamanteni mom moy euh, infection euh, sexuelle mhm. euh, tey ji meun nañu né euh, infection bari na mais coach laataa ñuy dugg ci infection yi mhm. mauvaise haleine nan nañ ko mën a euh, lijjantee ci couple par exemple yow bëgg nga di nekk ak sa borom kër tey jii mhm. te bu la jegee euh, xet bi ngay dégager du neex ci mom mhm. naka lay mën a yàggee ak yow ci ci ci ci ral bi loolu day def naa ne maa ngi doon def ben vidéo bu extraordinaire doon ko expliquer ñu ci bari tay ci ñi amé mauvaise haleine dañu yaakaar ni ci gemmiñ gi la alors que fièvre bobu du feebaru gémmiñ feebaru bir la tay ki mu dal bu ci bayé xel deug deug deug dina gis ni dina tollu ben période buy def yenn effort physique wala muy wax day melni lu melni ben genre pep ceeb buy jógee ci gorge bi di ñëw ci gémmiñ bi mm-hmm. day gis ni bu ko defee nii wala ba japp ko bu génné day melni comme genre pep ceeb bu ko tojé su fuuni day xassaw xun mm-hmm. lolu moy li faral di xéñal gémmiñ mm-hmm. ñi amé mauvaise haleine yépp problème bobu la ñam bobu nak wax dëgg fa yalla dama ciy mayé des fois ben solution bu extraordinaire bo xamni gaay dañ koy utiliser ma ciy am ay retour yu extraordinaire donc huile d'olive ngay wut 100 ml évite tout le coup 100 ml litres à 2 ml litres de miel. Nga déjà c'est l'air, dégoûter coup du matin, coup du soir. Ça se soigne même pas à l'espace d'une semaine. D'accord. Infection, il y en a que n'a que l'anti des métaux. Il y a le gouvernement a une infection digne. À des niveaux que les gourous ont une infection fii jamono toll tey étude bu bi ma mujjee jot ñu def ko diwaanu États-Unis ma ciy nuyuwaale bu baax a baax au passage docteur J, donc euh, maak ñoom dañuy liggéeyandoo ci benn benn association bu mag la bu nekk États-Unis dañuy liggéeyandoo des fois ñu am ay conférence di ma ci invité ma ciy dem di ci présenté mhm. dafa wax ni rapport bi ñu mujjee jot dañu wax ni mhm. lii ñàkk seen bakkan La wax de jëm ci feebaru li ñuy duppee les MST maladies sexuellement transmissibles mhm. y compris les infections ci célibataire moo ëpp fuuf tey li muy dal que les femmes wala boog les hommes mariés mhm. infection tey laa wax mi ngi rey ay doomi aadama fii ci biir réew bu Sénégal y compris des hommes ah bon bien sûr parce que bu dee célibataire bi am infection la da koy nëbb mhm. ah dafa rus célibataire bu bu même bu dee bu jigéen bi rus na wax ni man damaa am infection ndax psychologiquement dañu jàpp ni infection ku am jëkkër dong ko war mhm bu dee la boko amé kenn du ko yek da koy nëbb ndax dañu japp ni infection saa bu ko góor amee ci jigen lako ko mhm. donc bu fekké ni célibataire nga nek góor bo né amna infection rek automatiquement dañu naan ko yaa ngi yaa ngi mhm. alors que mën na bañ a nekk lool. loolu nag loolu nag la góor ñi di neub mom la jigen ñi neub motax ñuy so xalé ak mom mhm. bala ñi dem hôpital dañuy fekk ni ag nañ ci niveau bu extrême et que infection c'est tout à fait normal vous faites que xamuloo ni entretenir sa hygiène euh, intimité. Mhm. mais c'est tout à fait normal que nga une infection. Manam. tey bu célibataire am infection mhm. musul xam mhm. sexe musul ubbeeku fan la une infection infection. la une autre question bi. tey da ngay gis Sénégal nous célibataire dañuy la peur interne. bu sol sol pantalon que léeg qui ci jigéen buy de à 6 h du matin pour dem jël slip de mhm. sol sol jël baa mooy de taat seen yooyu ñuy sol tamit am mhm. sol pantalon jean bu da ceinture dem sa awra bi amul air di amul dara tout au longueur de la journée 6 heures du matin bu 18 heures bi ngay dem mhm. fan la air di dafay guus. Mhm. léeg-léeg tey ci yenn place liggéeyukaay yi nga bokk ak jigéen fu ngeen di liggéey. Mhm. nga gis ne bu safee saw da ngay gis nag mu daw dugg ci toilette bi. Mhm. saw ba pare jël loxoom laabu. karaw yi tooy. Mhm. sexe bi tooy mu jëlaat slip bi tegaat ci kaw jëlaat pantalon takkaat. au mu jël mouchoir. au lieu que mu jël mouchoir pour fomp ko mapp ko ba mu wow mu soor a sol slip am déedéet noonu lañ koy solo ci tooyaay. Mhm. léegi nag tooyaay boobu muy tooy mooy dafay dafay guus. Mhm. tey bu nawetelee bu nawet jotee nga tëj sa néeg suba jant bi so boo ko ubbee gis nga xet bi lay dégg bi lay dal. noonu la sexe bi di mel. alors que microbe yi ak les bactéries loolu la ñuy

léegi nag fan la danger bi nekkee mooy perte blanche bi bu fekkee dafa am couleur changer couleur. Mhm. commencer di marron. Mhm. wala mu sa am odeur commencer di mhm. xeeñ. mi ngi lay jox message que ni nous sommes en train d'être être infectés. soldats yi waroon di xeex fi mu toll nii ñu ngi leen di la infection nous sommes en train d'être être infectés mu indi infection. D'accord. bu la dalee nag kon kon nag jugal. Mhm. fexe renforcer waat sa système. bi nga xam ne mooy tax flore bi mën a delluwaat ci origine pour mën a combattre ak ñim doon ñim doon xeexal. Mhm. donc loolu kese moom moo koy justifier. te loolu war nañ ci bàyyi xel. war nañ ci bàyyi xel say sous-vêtement tamit nga koy weer ci naaj. surtout am na solo. surtout mhm. beneen bi ci des. muy jigéen ñu bari tey ñoom ñoo indi vulnérabilité ci seen flore vaginale ñoo ko néewal doole. di raxas sa kanam mel ni kuy xeex. léeg-léeg njàmp yi ngi ñuy ràbb moom la ñuy bomb ci seen kanam yi xërës xërës xërës xërës ba maara day taal mhm. léeg-léeg nga gis ci jigéen bu jël saabu diw ci ay loxoom ci ay baaraamam di dugal ci biir sexe bi di paqaj paqaji pour na da koy raxas pour mu set donc trop d'hygiène mën na la yóbbee nga détruire sa flore mhm. vaginale tout à fait parce que le sexe mhm. jigéen ça s'auto nettoie mooy nettoyer bopp moy mhm. raxas bopam soxlawul di jël sabu soxlawul di jël barab pour dugal ci bir nan da ngay nettoyer am amna solo nañ ci baye xel alors euh, euh, solution bi gën a gaaw ci ci infection euh, ci couple mhm. pour parce que infection bu ko jigéen ki fajo ku góor ki fajul je pense que amul sens mhm. wala lan nga ma ci mën wax waaw 90% vingt bu ko góor amee rek ci jigéen la ko jëlee ndax dafa bokk ci les maladies sexuellement transmissibles mhm. donc des di des fii di càpp fee di des fii di càpp fee bi ñu doon wax sànq mën na yóbbee góor à ce am infection mhm. jigéen bi nekk tamit ci am infection mën na transmettre des moom itam mhm. góor mën na infection donc le traitement bi ça bu vous infection le mieux moi mon mhm. traitement infection ndax en couple yow nga infection vous avez traiter infection mhm. te sa traité alors que infection vous ngi ci vous yow même bu ak yow rapport mën na Vous Vous lu ci Vous ci ci Vous olof Vous ci olof ma rek mhm. di def Vous intime bain intime wut Vous wala wut al bo baxalé ba mu bax nga sotti ci siwo bi sotti ko fo xam mën nga cee tok nga tok ko cóolóol bi dugg hmm jigen dafa war di ci ay dernier cummikaayam mhm. mu ci bolé bain intime mhm. baxal sa sa sa aldanke wala sa jëkkaa ba mu bax mhm. sotti ci ci ben ci ben fo xam mën nga fa tok nga tok ci cóolóol bi dugg c'est très important